وأوحينا إلى إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا ولكن أنت لم تصدق في الرؤيا C'est ça qui est important. Ibrahim, il y a le dëggal qui li nga gis. mais li mu gis image la suura la suura Ismaïl lañ ko wan ci xaqiqatu dibxi l azim xar ba ñu rendi dañ ni moo war a wuutu Ismaïl xar la yàlla feeñale ci suura Ismaïl Ibrahima gise ko noonu mu des bi Ibrahima décidé pour ni day ray Ismaïl te yàlla day ko ni ko dënga djoum li nga gis moy Ismaïl mais li ci souf gisuloo ko mooy xar te mourous rus wax waxati Ismaïl ni ko dama djoum ndax li di bayam mu denc secret bi bi yonent bi Muhammad ñëwee ci alquran lay soog a leer Ismaayila it wax ak borom bi te Ibrahim yëgu ko mu wax ak boroomam ci biiram ni ko Ibrahim nee na yaa ko wax mu rendi ma danaa nangu ci benn condition moo nga yéegale ma ci daraja yaa ayatuha nafsu almutmainnatu irjii ila rabbiki radiyatan mardiya boo ma nangoo yéegale ci aaya boobu rek ma nangu mu rendi ma yàlla ni ko duñ te yegg ñu yegg ci rendi la te martaba aaya bi dinaa la ko jox su gis nga li ñu rey ci xar yépp ci Sénégal ak fudul senegaal ma ne ko ba léegi jotagul jotagul bakkanu Ismaïl xolal at mu jot ñaata ju millions yi xar lañuy ñuy rey ci tebeski fi ak fudul fi te ba legi jotagul bakkanu Ismaayil ku wax la am na ñoo xam ni kenn xamul seen grandeur nu mu toll. xam nga tabaski dafa am ci Serigne Cheikh waxoon mu ne xar. boo ko gënul waroo koo rendi lu jar a jàng la lan moo tax yindi ngeen ko sànq échange équivalent la xar bi ñu tër rendi ko dafa am bakken bu mu jënd mais loo xam ni bakken la jënd nga rendi ko ba pare wëlbati ko li ko lekk lu jar a xoolaat la xanaa xamoo leen ni tabaski buñ koy tudd lekk xar taxul julli tabaski leen nay jëriñam yàlla bañ ñu comptabiliser bàkkaaru lekk xar bi ndax xar googu ci bés boobu valeur yàppu nit la am valeur yàppu nit la am moo tax li mu mën a yàq ci ne yëpp mën ko mais waxuma la sax lekk xar bi est que sax est-ce que sax redd bi war na ndax Ibrahim ba muy rendi am na lu fa jaar mais ñun est-ce que jaar nañ foofa ndax tabaski ku ko bëgg a yemale ci xar rek da yab yàlla lan moo tax c'est très simple yan élément moo tax ñu tudd tabaski yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Ismaïl Jibril soxnaay Ibrahim xar mi doog a ñëw. muy cinq éléments élément benn bu nekk ci def si am jikko joo xam ne moo tax yàlla tudd histoire jikko jooju nag fekk nit ki mënul fexe ba juróom yépp mu maîtriser ko dund ko te farataal ko amul droit laal xar ci yoon amul droit laal xar bi ci jiitu ibrahim dafa signé contrat waaye ba mu signé contrat ba pare mbaaxu yàlla bëgg ko ëpp doole te mooy foofu xelam ma ngi ñaari xel nangam laa waxoon sama borom de waaye moom ku baax la est-ce que bu ma ko ñaanaatee duma ko duma ko may loolu mbaax yàlla ma ko doon bëgg ëpp doole waaye ngorom ngorom ak dëggoom du ko ko may bu ko yàlla mayoon sax du baal boppam kon nag dëggu googu lu war ñëpp la moo Ibrahim ci biir opération bi ben médaille rek la la parce que comme Jeux olympiques la et discipline là benn médaille d'or mom le décrocher ci discipline bi moo di laqad saddaqta ruya inna kadalika najzi al muhsinin mu décroché médaille yu ihsaan Ismaïl bu dul woon dara sax lim ko wóor ni baayam Ibrahim lu mu ko mësa wax teg na ci bët lu mu ko mës a wax dëgg la kon nag bu xëyoon sax wax ko loo xam ni moom wóoru ko mu war ko wóolu ndax musu koo nax nangu googu lu war ñépp la mais Ismaïl ci biir opération bi moom mu décroché ñeenti médaille d'or mooy ñeenti kaane yi كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة wa kaana inda rabbihi mardiya mu dellu ci radiyatan mardiya ja soxnaay Ibrahim moom it la même chose mais fii doo ko tuddee nangu doo ko tuddee nangu tey nga koy tuddee ndax ñaar am na muy Ismaayil di Ibrahim xam na ne ay borom cër lañu kon nag lu ñoom ñaar àndandoo lii lañ koy def mu war cee tey nga xamagul lépp waaye xam na ñaar ñii kon nag dana tey jibril nag soo ko ñëw te man ci sama analyse bosom sax gën a choquant ndax lan moo tax fii ñëpp defee li ñu war a def moom ñàkk def li mu war a def moo tax ñu tudd ko ci histoire bi ndax balaa yàlla di àddu waroon na xam ni valeur bakkenu Ismaël war na dem xooli lu ko remplacer gaaw kon nag moom dafa nangoo dabaatal dabaatal googu moo tax moom ñu tudd ko ci biir li muy doon doon malaaka def na erreur ba yàlla fàttali ko ko moo tax mu gaawantu gaaw dem jële xar gi mais xar gi ci boppam mais xool leen rek xam nga ñoo ngi wax sacrifice mais fii fi fii nga koy déggee sax lan moo tax c'est très xar gi tey ji dafa am choix mu toog rek ca fa ko yàlla denc moom kott nekk fa nekk ci ngooñ geeg ñax geeg yi si des ba njëriñ la koy amal waaye mu wóor ko ni tey ji mu joxe bakkanam yàlla jaarale fa xeetam ñëpp ku ci deewati mu am lu mu la garantiral sacrifice boobu mu nangoo def moo tax loo ci gis ku ci nekk sa xaru tabaski li ñuy wax moom moo lay jéggiloo siraat lu ko lu leen may loolu sacrifice bi mu nangoo def la moo tax gis ma juróom ñi jullit bu ko matalul boo laalee xar bàkkaar nga tëbaski ji tëbaski ji ñaar yii la ixsaan bi sëbqul waxd النبوة والرسالة الصلاة والزكاة الرضا من الرحمن عز وجل متخكوتي صنو تدكروش وتي مداي بن هاي مداي دي برونز جاروكو تموي لك ياب لك ياب médaille de bronze la dem bi ca jàkka ja julli ji médaille d'argent la xalaas waaw bi ñu tëbaskee ba ci suba gi ma génn di doxantuwaat ca barab ya barab bu ma fa romb rekk duma gis lu dul pënë ak doju xeer muy pëne yi ñu doon yeewa xar yi ak doju xeer yi ma xool gisatuma xar may jëneer sunu boroom nag bis bu ñu demee ba àdduna bi moom itam ñi fi nekkoon ñépp mu jël leen ba àdduna bi di nuroog moom ni ma dareelu xar bi doon nuru ma xol làmp ya ñu fa defoon pour di ko dimbalee jaaykatu xar yi pour mu di leen leeralal dara daral bi ma gis ni dindi nañu làmp yi ida shamsu kuwirat wa ida nujumu kadarat wa ida aljibalu suyirat et cetera et cetera ma di ko xol ci daral bi mais benen jaxal ma moy pëne bi lu fi wut lu tax demul ci oto lu dul di yeew xar kenn ku ne yaay xam nag loo ci dégg